yu nekk yi moom xale yu baax lañu julli lañu mu di ñu mot xale yu baax suñu xale lañu ñun ñëpp ñu ngi kontaan dikk bi yëpp ñëw depuis suba ko ba tey ñu ngi fi toog ñu toog ci sëriñ bi ndox kontaan rek kontaan yàlla na yàgg yàlla na yàgg ngeen jëf dañu kontaan bi neex na nag ñoo kontaan parce que xale yi suñu xale yu baax lañu commencé nekk fi olof yi ñoo baax ñu ànd ñu ànd bu baax la ba fet kon bu ñu amee cee gan ba ñoom ñu ñëwaat dañuy ñoo leen tudd jur rafet kon na yéen yàlla boole diw encore. ñun ñëpp benn lañ amul xaadir amul tijaan amul murid ñun ñëpp benn lañ. notori ko allah min notoriɓe ko julɓe komin julɓe ko sukaɓe amen hoddiɓe amen moƴƴuɓe julɓe min jiino juula ene koora ene cakkone muddo minenne ko ɗum addi min ɗo ko dewal enen fof ndenndi ɗum enen fof gootu wallahi allah fof goto fof ko allah nooti de min beltima min beltima kadi wonɓe ɗo ɓe sukaɓe ɓe garɗo ɓe ko moƴƴuɓe ko nehiɓe kolle min tan ko juulu e dewal allah mo koddere mabɓe kadi ko allah min beltima no fewi no fewi no allah hokkere wattanima mina samdi min haybin tifati li hayrihi ginnaaw ci caravanu màggalu Touba édition 2013 jaar bokki jawwe waalu ilaahu wa minni lahu yàlla borom Touba. Serigne Modou Mbacké Sy mi jiite délégation bi bawoo ci dëkk bu sell bi di Touba jiite caravane màgglu Touba édition 2013 wéyal aw yoonam di caravane bu jokkale moo ko tax a jóg gëna a boole këri diine yi ginnaaw bokki jawi wóoduru fii El Ibrahima Ndiaye di njiital 2STV teertu caravane bi bawoo ci dëkk bu sell ba di Touba moom El Ibrahima Ndiaye di njiital 2STV ni ngeen ko nemmeeku ci direct bi ñu leen amal ci 2STV ak 2STV dalal caravane bi bawoo ci dëkk bu sell ba di Touba moom El Hadj Ibrahima Ndiaye rafetlu lool xalaat bi nga xam ne dëkk bu sell bi xalaat nañu ko waaye itam jàppandal lool liggéey bi nga xam ñu ko ci amal. ginnaaw Wuduru caravane bi jeexal ci Fuuta jàppati yoon dëgmal Jolof Ranérou di gox biñ ci njëkk a nemmeeku ginnaaw Ranérou caravane màggalu Touba édition 2013 gën a xuus ci biir Jolof Linguère moo fas yéene doon beneen jubluwaayu caravane màggalu Touba édition 2013. jërë ngeen jëf mbokk yi li mooy li doon tey seen spécial caravane màggalu Touba édition 2013 ngeen àndoon ci ak Pape Sayax Mbaye Bekay Ndiaye ak mboolem équipe bi 2STV yabal. di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen incha allah. فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة yàlla musalliman